asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu sëñ Muntaxa Mbàkke Bachir di ñaan yàlla suñu borom mu yàggal ko fi loolu te wér sëñ bi ñu ngi leen di ziar yéen tamit di leen nuyu bu baax a baax a baax yéen ñi nga xamante ne ci turu sëñ euh, Basiru Abdou Khadr ñu ànd ak sëñ ànd ceeg sëñ làmp Ndiaye mii yéen la boole loon bi ñu amee projet boo xamante ne euh, ñun waa Sénac peinture ànd ceeg waa Rawdu ñu amoon projet boo xam dañoo ne woon dañuy ñëw def loo xamante ne dinañ ko def ci dëkkub Touba maanaam mel ni tey yeesal li nga xamante ne mooy barab yi nga xam ne nañ ko soxla nga xamante dëkk bi ñëpp ko bokk bi ñu amee lu demee noonu waxtaan ceeg sëriñ Basirou Abdou Khadr mu boole ñu waa Xitma ñu ñëw ci yéen ngeen wan ñu yi nga xamante ne moom ngeen yittewoo woon ak yeneen yi nga xamante ne ñun ñii ak waa Rawdu Rayaaxiin ñoo ko jëloon décision ne dañ koy defaraale di ci sant nag bu baax a baax a baax ndax maanaam. xel mu rafetee noonu ak sellee noonu ak jëf ju tool noonu xëy na am ko yombul waaye bu yombee ci ñun dafa fekk ni sunu directeur euh, général bu SENAC bi tudd Laurent Lardès ak suñu directeur commercial bi nga xamante ne tey mooy suñu kilifa ànd ak ñun ci liggéey bi euh, dañu ko nangul te yombalal ñu ko loolu ndax damay wax saa su ne ñoom buñ ko defee dañ koo def dañ ko defal ñun ba noppi ñun ñi nga xamante ne dañoo bokk ci njabootu Sëñ Tuubaa balaa may tudd Touba damay tudd ñun suñu bopp ne ñun la ko defal ba noppi kon nag loolu dañ ci sant bu baax a baax a baax euh, wax dëgg yàlla tamit bi ñu ñëwee tamit fii gis nañu ni ngeen ñu jàppee yombalal ngeen ñu mbir yi lool jàppandil ñu ko lool ndax bi gars yi tàmbalee liggéey bi ba léegi wax dëgg yàlla tumuraanke wuñu fi te jaaxle wuñu waaw keroog bi ñu ko tàmbalee fekk xëy na yàlla dogal mu taw euh, ñu arrêté ko Euh, taxawal liggéey bi jàlloo demoon ci sëñ euh, waa Touba ca kanam ci buntu ci turu sëñ Abibu mm-hmm. nga xamante ne at bu jot dañ fay joxe lu tollook juróomi million boole ko ci liggéeyu Touba ca lañ demoon moo tax sax jotuñu woon gisante ñu ngi koy tuub nag bu baax ndax xaarloon nañ la fi lu yàgg tuub nañ ko bu baax a baax di ko jéggal kon li may wax rek mooy que ni wax dëgg yàlla euh, dañ leen di sant ñoom ndax man tey damay wax ni du ma wax sax ci turu société bi ma bokk muy Sénégal mm-hmm. damay wax ci turu yoonu murit gi ma bokk ba noppi dama wax ni Sénac peinture ñun dañ leen di sant bu baax a baax a baax di tam raw du rayaaxin bu baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla projet bi mu amee dañu wax nañu xayma leen lu ngeen bu leen calculer bu leen xool ndax ëpp naag ëppul te bu leen xool ndax qualité bi nañu def bu yomb wala déedéet xool leen lu baax li nga xamante ne loolu mooy yitt loolu la ñittewoo xool leen li nga xamante ne mooy li doy ngeen def ko ñu ànd ceeg ñoom kon nag dañ leen di sant bu baax a baax ndokk bi nga xamante ne ñoom xalaat nañ loolu li may wax saasu ne mooy ñoom dañuy wax loo xamante ne man day sedd sama xol dañuy wax ne ñun bu ñëwee Touba lépp lu mu def Touba defuñu ko ngir lenn dañ koo def ndax dañ ko war a defal Touba li tax ñu war ko defal Touba parce que Touba moo ñu ko defal ba noppi ñun dañuy delloo njukkal Touba ndax tey ñëpp xam nañ ni commerce fii ci Sénégal murit yi dañ cee fës lool ñëpp xam nañ ni tuubaa fii. yàlla dimbali nañu ba ñoom danoo taamu peinture Sénac li tax ñu taamu ko tey bu ñu jëndoon tey ay tonni tonni ton teg ko fi te peintre yii liggéeyuñ ko du jariñ dara kon ñoom ñëpp dañoo boole tànn ko ñoom ñëpp dañoo boole sopp ko ndax qualité bi nga xamante ne moom la Sénac peinture di defar donc tey kon bu bu demee noonu ba nga xamante ne ñoom ñëpp moom lañ tànn kon nag bu li amee ñun daf ñuy dafay dafay nekk ci ñun ndëgte euh, ba nga xamante ne tey lépp lu dëkk bi soxla luñ ci mën taxaw dañ koy taxaw pour def ko ndax boobaa dañuy delloo jukkal dëkk bi dafa naa maa ngi tuub kàddu yi nag maa ngi koy wax ci turu sama directeur commercial mi di Assane Khadra moom moo jiite Sénac Tay Peinture di société boo xamante ne mi ngi nekk dakaar am usine Sébikotane direction direction commerciale bi nekk euh, avenue Lamine Gueye moom moo ko jiite wax dëgg yàlla mu nekk koo xamante ne ku uuf njaboot gi lool laabiir lool ngeen ñaanal ko mooy mu yàgg fi loolu te ànd ak wér yéneen ñi ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal suñu borom yokk seen i fan ngeen yàgg fi lool te ànd ak wér jërëjëf asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen yëpp di leen ziar di leen remercier pour l'accueil à Touba depuis euh, maintenant plus de dix jours quinze jours euh, ngi remercier en haut lieu suñu Muntaxa l'ensemble des des dignitaires de Touba et aujourd'hui tous les dignitaires qui nous reçoivent maa ngi leen remercier maa ngi remercier Touba ma fal wax na ko dañu ñëw Touba pour rendre pour dellu tuba lu Touba jox Sénac depuis plus de vingt six ans ñun ñu ko fàtte mukk Touba est important pour la Sénac et important pour le Sénégal ñun dañu ko jàpp et on fera encore plus incha allah chaque année Mais aujourd'hui, je voulais encore une fois remercier vraiment l'accueil a eu à Touba et le travail qui a été facilité par toutes les personnes qui se sont associées dans ce projet-là. Je voulais remercier Yanniep, de remercier Touba, de remercier Dignitaire Touba et souhaiter surtout un bon Magal de Touba 2024 à l'ensemble de la communauté mouride du Sénégal et de l'ensemble de, de ce monde-là. Diadjef, merci. Salam alaikum. Ah, mbokki julit yi ñoo ngi leen di ñuli te di leen siyaare di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba lépp lu mu yéenee liggéeyal sëriñ Touba mu defe ko na mu ko soobee ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala di nuyu ñi nga xam ni ñoom lañ fi nekkal di nuyu Serigne Bassirou Mbacké mi nga xamante ni moom lañ ñu booleel mu doon jëwriñ ci lii ñu nekk sëriñ Basiiru indi ñu fi boole ñoog sëriñ Abdoulaat Bousso ak sëriñ Lamp njaay ñu jiite ñu ci liggéey bi ah ñu jaare woon ci sëriñ Abibu itam bi ñuy daataan tàmbali liggéey bi loolu lépp ñu jaar ci ngir bëgg bu ñuy liggéey mën a am yoon woo xamante ne kenn lu ñu ne fii la wala yamal fii ba tax bi ñu ñëwee ñoom bi ñu waxee dañ leen xamaloon ne dëkk bi ci boppam dafa am ay réalité réalité yi mooy dëkk bi dafa am kilifa kilifa gi mooy sëñ Muntaxa ku ne xam na loolu ci lu ñu jàpp nag ne jël na dëkk bi lu ci bari boog teg ko ci loxob sëñ Sidim sëñ Sidum sëñ kon lépp lu ñuy def daa am fu ñu ko war a jaare ñu àndoon dem ci sëriñ Abibu waxtaan ak moom ngir bëggoon bala ñuy baare tëli wala ñuy baare fenn ah, foofu ñu jaar fépp it jubluwuñ ci woon lenn lu dul ndigal ndax euh, murit bi war na buy liggéey wala buy def lu mën a doon bala caa jëf am ca ndigal foofu ñu jaaroon yëpp ndigal lañ ci doon wut ah yàlla dogal ñu am ci ndigal ñu wëlbatiku teg ñu ci loxo yi waa xidmatul xadim muy sëriñ bu Bousso mii ak sëriñ abdoulaat Bousso mële ñoom itam ñu wëlbatiku teg ñu ci loxo yi sëriñ saaliwu ñang ah, wax dëgg yàlla li ñu fi nekk lépp tuwaar fa kàlla li ñu bëgg lépp ñoo ngi ñu ciy taxaw ci lépp loo xamante ni aju na ci wàllu xéewal wala bagage boo xam ne fii la war a jóge yombalal nañ ñu ko ba lépp yomb ah ñu it nag ba ñu waxtaaneek ñun ñun ñi nga xamante ne ñooy daayira Rawdu Rayaahin ba ñu ñu laajee ci sunu xel mu gàtt dañ leen a xamal ne de dëkk bi de loolu ñu leen wax ne dafa am ay réalité bu ñu ci jógee dañoo xalaat ne képp kuy defar dara ci dëkk bi te muy lu rafet lu baax lu jekk ak foo ko mën def boo ko mënee tàmbalee ci jumaa ji tàmbalee ko foofa ndax defe nañ ne jumaa ji moom a ah, lépp li gën mu ngi fii ci jumaa ji lépp li ñuy wutit mu ngi ci jumaa ji kon nañu tàmbalee ci jumaa ji fu ñu jëm jëm fa waaye jumaa ji moom ak li ko wër nañ fexe ba ku ñëw xam ne lii yéen a joxe lu ko rafetal ñun ñoo doon ànd ak yéen di ko rafetal a ah, ñoom it ñu rafetlu loola tax ñu tàmbalee urum bi wër jumaa ji bi ñu ñëwee Cheikh Abdoulaat xamal ñu ne lii nga xamante ni moo féetee biir jumaa ji di giri yu weex yi nañu fi tàmbalee ba nu fi tàmbalee bi bis bi nga xamante ni moom lañuy ñuy wootee moom la ñu wootee muy bisub général bi egseegul yàlla dogal loola egg mu egg talaata àllarba ñu ñu tàmbali li nga xamante ni mooy bitti bi yàlla defal ñu ci xéewal keroog ba ñu alxames astafurlah alxames alxames ñu ñëw liggéey liggéey bi ba nuy wàcc suñu borom wàccee ndox mu baree bari ndox ma itam dañuy jàpp ne loolee day gën a firndeel ni lii ñu ñu indi qualité bu baax la te quantité la ndax peinture léegi suñu borom taw ci léegi te la nga peinture woon nekk fa benn suñu borom jàppale nañu ci Sëriñ Tuubaa jàppale nañu ci ñaar mooy ñoom indi nañ loo xamante ne kon ku ne xam na ne loola baax na kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax. ñoom nag dañ leen di sant cant goo xam ne am na tàmbali waaye amul yemukaay ndax ñun bu ñu demee ba doon ab daayira waroon loo xamante ni lépp moo war ci wàllu peinture ñu koy def ci dëkk bi ñun ñuy jaayante ci sunu ñaq di ko def buñ gisee ku jóge ci àll ba ñëw ne moom da koo bëgg a jaayante ànd koog ñun kon ñun luñ ca mën war nañ ko caa def ah bi nu fi ñëwee am na luñ ñu dénkoon jéem nañ cee góor góor góorgóorlu nag lu ci rëqit nga xam ne ci ñun la ndax waxoon nañ ñu ne fii nga xamante ne mooy jumaa ji am na luñ fi soxla liñ fi soxla itam yaari kaaf la sëriñ bi moo ñu ko waxoon yaari kaaf ya nag kilifa la woon ak qualifié yàlla dimbale nañu ay kilifa yit teew nañ fi bu baax a baax ah ñi fi jot a teew ci doon liggéey itam xëy na bari na ñoo xamante ni wax dëgg yàlla ñu qualifié lañ ndax kenn ku ci nekk booy indi da ngay tànn ci say gone ka gën a qualifié ñooñu indi leen fii ñu ànd liggéey bi kon daal liggéey bi. ñun amuñu ci lenn lu dul wax sant yàlla sant yonent bi sëriñ Touba mi tax ñuy liggéey liggéey bi jaarale ko ci ñun nga xam ne loolu wax dëgg suñuy maam jaar nañ fi suñuy maamaat jaar fi te amuñu loolu buñ toogee ba nëgë ni ñun ñuy liggéey liggéey bu toll nii jaarale ko ci ñun te ñuy ay dongo yoo xamante ni séréer yoo xamante ne yii moom moom mënuma laa wax sax mooy lan kon bu ñu demee bay jiite liggéeyub Serigne Touba sant ci yàlla yonent bi Serigne Touba rek la ñuy def te sant suñu waajur ya ñu boole woon ak kilifa ya nga xamante ne ñoo ñu toqi yar ñu yor ñu ba yàlla dogal ñu egsi fii ba mën a jiite liggéeyub Sëriñ Tuubaa kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ah di baalu ak ñëpp itam ndax wax dafa xaw a jafe ah lu ci dëng nañ ma dimbale jéggal ma ko lu ci jub nañ ko sante yàlla borom bi te xam ne moom lu jub mooma lépp loo xamante ne moo baax yàlla la kon yàlla na yàlla jubal yàlla na yàlla baaxal te lépp lu ñu fi wax yàlla ko suñu borom nangu te yàlla defal ñu ci lépp luñ ci sàkku ci kattanu borom bi barkib Sëriñ tubaab bi tax ñu koy def sant nañ ñëpp daal rawatina ñoom asat ñoom ñii di waa Sanaag ñun nag moom ba ñu ñëwee ñoo ngi jàppook ñoom bu ñu demee danañ jàppook ñoom bu soobee yàlla incha allahu rabbi li feeg ñoo ngi gis seen ah, seen matériel di ko jënd di ko liggéey ndax ay liggéeykat lañ te xam nañ lu baax kon fu ñu gis lu baax ànd ak loola kon yàlla ñu yàlla yàgg ak ñoom ah, ñu yàgg ànd yàgg liggéey te may ñaan nag ñaanaloon naa leen keroog ñaan goo xamante ne gii yéen sang si yéen a ko mën a ñaan ndaxte dama leen a waxoon ne yal na ngeen dem ba sunu borom defal leen ngeen am fi pàkk boo xamante ne. dangeen ngeen naan fi dëjj usine boo xamante ne bii ci Sonac la soqi ko waaw usine boo xam ne danaan dëjj fii nga xam ne lépp ci Sonac la soqi ko ndax nit kat ah benn nit dana am waaye dana dem ba mujj yàgg mu jur doom doom jone feneen kon nag loolee mën naa law ba egg si fii yàlla na tàmbalee ci yéen ci barkib sëñ Touba Xaadimu Rasuul maa ngi leen di jéglu tey tuub yàlla nañu yàlla defal la gën dëppoog la ñu gënal jërë ngeen jëf bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Asan ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu kilifa ga nga xam ne moom ngeen bàyyee ndakaaru di nuyu kilifa yi nga àndal yëpp kenn ku nekk ci turam ak santam nuyoo boobu nag ñu di ko def ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy xalif général des Mourides di ñaan sun borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér. di ko defee ci turu Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo yor kàddoom te yàlla dogal bu boole woon ñu ak euh, yéen di ko defee ci turu mboolem mm, daaira muqaddamatul xidma bi nga xam ne moo nekk fii ci jumaa ji sëriñ bi dénk leen lii jumaa ji ak penc mi te ñu yebal fi kilifa yi toog sëriñ Abdoul Ahad mee toog di secretaire général bi ak sëriñ Abdoul Ahad mii toog euh, yore commission euh, mm, mm, sociale bi ànd ak sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne mooy wàllu communication bi ñu ñëpp nag ñu ànd fi teew ànd fi ak sëriñ Cheikh Ibra mi nga xam ne dafay taxawee ñaari tànk dafay taxawee ndawul sëriñ bi lu mu yebal boole ko ak yéen ngir ngeen ñëw ànd ak ñun liggéey bi waaye taxawaat fii tam taxawaay bokk ak ñun liggéey bi nga xam ne ñoo ko seq te muy liggéeyu sëriñ Tuubaa boo xam ne dañ koo ànd naka jekk kon ñaari tànk yooyu yëpp da koy taxawee di la dal nag jàmm. bu baax di rafetlu itam tànk yi nga xam ne jóg ba ñëw fii ci barab bi tey ji ngir seere liggéey bii nga xam ne ndaw yi nga doon yebal ñu doon ñëw bu yàgg ba léegi ñi ngi koy taxawee xam naa ne doy nañu la doy nañ la fa doy yem ndax ba liggéey bi tàmbalee ba léegi ñi ngi dégg saw tur di dégg turu Laurent waaye ñi ngi leen di door a gis kon loolu day tegtale ne ñoom ñii ngeen di àndal liggéey bi doy nañ leen ci liggéey bi biñ ñëwee ñu fekk fi waa Rawdu Rayaahin di mbooloo mi nga xam ne ñoo lëkkaloo di pentirkat yi mhm. Serigne Touba yi nekk ci dëkk bi di liggéeyal Serigne Touba yàlla def nag bi ñu ñëwee jaaree fi ñu war a jaar ni ñu ko waxee léegi jëruñu di ci dellusiwaat Serigne bi boole leen ak Serigne Cheikh Ibrahima ñu ñëw fekk nu fii wax ne nañu xool ñoo laaj ñu déglu leen ñu wax li nga xam ne moom lañ amoon yéene mhm. bi waxee liñu amoon yéene mën a it daanaka ci jira ci jataay bi ñoom. dolli nañ ci lu ëpp daanaka lu mel ne lañ waxoon waaye loolu taxul ñu dellu gannaaw dañoo dafa mel ne sax dañoo far gën a engagé wu seen yéene gën a fees seen xol mel ne dafa gën a sedd maa ngi fàttali ko rek keroog bi ñuy wax bi muy ci armée li wax jullikaay baag yooyu ma ne ko waaw. yéen da ngeen di defal ñuy dund bàyyi ñu faatu ndax morgue bi da ngeen ko ci dund boole <laughs> wala da ngeen leen ragal <laughs> waaye ca saasa dañ ne ma loolu danañ ci bokk ñu daal di leen di wax ñu ko. sëñ Mouhamadou ñu waxee léegi giri yi nga xam ne mooy yi nekk ci jumaa ji yëpp tamit lu bari lool nag di lu yaatu ñu daal di nangu engagement boobu yëpp mu mel ne da ngaa jógoon indi ñaari kilo ñu ngi ñëw ñu ne la deet lii nag fii kat liñ fi soxla ëpp na ñaari kilo waaye juróomi kilo la nga ne bari waay bi dama ko yàqal nu mu mën a toll rek am nañ pas-pas bi am nañ yéen ji def fas nañ ko yéenee def loolu nekk lu rëy. ba ci keroog bi ñu ñëwee sax am na barab boo xam ne keroog bi ñu ñëwee ba njëkk ñëwee ci yoonu njëkk ba yàlla dogal na jotuñu ko woon a seetlu seen ginnaaw lañ ko seetlu waaye bi ñu ñëwee ñu wanaat leen ko dañ ko caa dolli fa lañ tàmbalee sax far lii lépp nag suñ koy wax dañuy wax rek yéene ju rëy ji ak pastif bi nga xam ne indi nañ ko ci liggéey bi moo tax ñu di ko wax ndax su fekkonte ne loolu amut lañ waajaloon rek suñ ko naree weesu dañ naan ñun kat fii lañ mën a yem ndax lii lañ waajaloon waaye nag xam naa ne doyloo ngeen leen waaye ñoom it doy nañ am ngeen yéene yi jëf waaye ñi ngeen tànn itam ñu ñëw taxawul leen liggéey bi am nañ yéene ju toll ne ñi ngeen am waaye xam nañ seen yéene it nag xam nañ seen pas-pas it xam nañ it ne liñ fi luñ fi mën a engagé ñu njëkkee da ngeen da ngeen ànd ak ñoom ca loola loolu moo tax ñu engagé wu ko kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf barab bi dafa nekk barab boo xam ne li mu leen ko li ma ko waxoon keroog bi ñu ñëw a ah, fekkoon ngeen de mu am loo xam ne wala waa ñu ngi ko doon waajal ngir balaa màggal ñu defar ko bokk na ca morgue ba ak yónnee demee ak fii nga xam ne fi la groupe bi nekk loolu ñu ngi ko doon xalaat doon ko bëggoon mu bokk ci wàccaayu màggal gi ca saasa ñu ne de loolu moom bàyyee leen nu ko dañ koy daal dañ koy boole ci yëf kon nag koo xam ne dafa am yéene ju toll noonu jëf-jëf ju toll noonu mu rëyee noonu euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daf daan wax ne. bu la nit defaree lu ñëpp gis da koy sant ba ñëpp dégg ko kon nag ñu ngi leen di sant ci tur daayira Muqaddamatul Xidma cantuk yoon wi nag ak cantuk sëriñ bi ci kàdduk sëriñ Basiru la nekk sëriñ Basiru dañ leen ko joxal boppam ci kanam tuuti incha allah waaye noonu nag lii mu boole woon ak yéen ñu doonoon ci ay jëwriñ sañ nañ ci kàdduk jëwriñ yi liggéey boobu ñu jottali ci suñuy cant jottali ci suñuy ngërëm rafetlu taxawaayu ñi nga xam ne ñoom lañ ci doon yebal ndax bi ñu ñëwee keroog dañ leen wax ne. ñoom waa Rawdu yi bu fii kat barab la boo xam ne bokkul ak barab yëpp ñi ngeen fi yebal na nekk ñu tànn nañ nekk ñu kàllafe nekk ñu qualifié noonee nag lañ ko defee ca tàmbali ba ñu xoolee gris yi mu bari lool ñoom ci seen bopp sax xam naa ne tiitoon nañ ne lii kat ndax bu ñu xaaree ba bés ba mënu la nekk ndax dafa ànd ak weer te dafa jafee peinture kon ni ñuy xalaat mooy. mbooloo mi ñu àndalkat waxuñu leen woon lu mel noonu. Mm-hmm. waaye dañuy dellu waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. ngir ñu man koo def boole ko ci liggéey bi. yàlla def keroog bañ demee ca réunion ba la ñu waat la la ma sëñ Mahmad mi wooyee ca biir réunion bi ne mbooloo mi kat wax nañ leen ko waaye ñoom ñëpp ànd nañ ci. yenn jafe lañ am mooy liggéey yëf yi kawe fuñ taxaw ak yu mel noonu. ma ne ko ne leen ñun de am amuñu <laughs> safa yu leen doy moom mm-hmm. waaye nag liñ am ci matériel lépp bu ngeen dikkee. luñ ci am ñun mën nañ leen koo jox xobal leen ko ngeen liggéey ko tax wàllu taxawu leen itam lépp luñ ci mën danañ ko def ba fii ak ba nii kii ma faal mee ne ma bés ba de fàggu nañ lépp luy xéwal lu ci war a jëm loolu moom fàgguwaale wàlle nañ ko ci liggéey bi ah loolu de moom noonu ngeen ñun ngeen ko dimbalee ndax ku ñëw di la jàppale ci ab liggéey yow yaa ko war a añal boo ko mënee yaa ko war a añal boo ko mënut it yaa ko war a añal waaye kon lu ngeen ci def rek noonu ngeen ko jàppalee yàlla def na it ñoom bi ñu ñëwee. mën naa wax ne def nañ fi fukki fan ak juróom 15 jours yoo xam ne bés bu set dana am ñu xëy si liggéey si te dañoo ñe dañuy bàyyi seen i sànce yi ñu am ñëw liggéey si yand fi ba ngoon jot ba liggéey ko liggéey bu rafet bii ñu ko liggéey nga xam ne ku dox ba egsi fi ku ne tey di liggéeykat wax nga ne liggéey bi de liggéey bu qualité la qualité bi moom mënu fee gën jëmmi peinture bi qualité bi qualité bi mënu fee gën waaye jëmmi liggéey yi tam mënu fee gën a baax loolu nag kon ñu ngi ciy sant bu baax a baax di leen ko seereel di ñaan yàlla mi nga xam ne nag moo am ndollan mu yokk leen ba fépp fu ngeen bëgg barab bi àgg fa mu àgg fa waaye di seereel nag mboolem réew mi ak bitim réew ak taalibe bi yaakaar Sëriñ Tuubaa ne taxawaay bu mel nii ma wax ci njëlbeen moom ngeen taxaw ci barabu Sëriñ Tuubaa bii Cheikh Abdou nag daane wax ne ku liggéeyal Sëriñ Tuubaa murid yi ñoo la war a fay kon nag murid yi nañ yëg ne seen ak moom liggéeyal na Serigne Touba ci penc mii ci wàccaayu màggal gi rafetal ko rafetaay bii mu am doon nañu xalaat qualité ba waxoon ko ca njëlbeen nga defe naa ma faal waaye li moo doon wax léegi mooy peinture léegi mu taw léegi te la nga peinture woon yàqut loolu moom mooy dëggal ni qualité bañ doon wax kon moom am na kon ñetti kaaf yi ñu waxoon muy qualité kàllafe qualifié ñeent yëpp ñëw na kon nag ñu ngi sant bu baax di gërëm di des ci kàddu yi cant yi nag dafa nekkut ci sunu loxo waaye li nekk ci sunu xol te nekk ci sunu kàddu loolu rek lañ sañ a génne la ca des ci sunuy kilifa la nekk buñ demee ci sunuy kilifa yaakaar naa danañ ko waxal seen bopp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.